di xaar sëñ Issa. waaw Pape Maguette ba tey yaa ngi tribunal bu Ndakaaru. waaw ñu ngi ba léegi ci buntu palais de justice Lat Dior bu Dakar. Hmm. Euh, li nga xam ne rek moom la ñu vérifié ba léegi moo di information yoo moo doon circulé euh, ci euh, placement en garde à bu Ousmane Sonko waaye nag son avocat ki nga xam ne moo di maître Cheikh Khoureychi Ba moom daal dina koy fësal en tout cas publié ko kenn Ousmane Sonko garde à daal di def pour vol de téléphone. ak appel à l'insurrection euh, sànq ni nag lañu benn avocat bu nga xam ne ci ñoom la bokk génn. Euh, ñu wax ak moom xëy na nag bëggul woon sax àddu ci mais il nous a donné des infos que en tout cas euh, il prépare son audition loolu nag moo ñu xaw a jaaxal daal. parce que euh, le fait que ñu euh, wax ne dañ ko placé en garde à mhm. euh, ba noppi di préparer une audition donc kon daal si information nga xam ne moom lañ jot moom mooy ñi ngi koy waaj maanaam audition bi la ñuy préparer donc ça veut dire loolu benn la beneen bi li nga xam moom lañ jot a gis maître Cheikh Khoureychi Ba daal di koy annoncé sur sa page Facebook te loolu itam c'est son compte officiel quand même mais on attend toujours que mu génn moom ak ay naataangoom bu fekkente ne ñu génn en tout cas euh, ngir ñu mën a euh, def une réaction ngir wax ñu ci lu leer naa ci parce que fi mu nekk nii affaire yi euh, daanaka xaw na ëlëm ci bopp nit ñi parce que garde à vue bu nga xam ne déjà ñi ñu doon waxtaan que ni defaguñu audition bi loolu itam jaaxal nañu leen li ci wër te wóor daal moo di ne maître Cheikh Khoureyssi Ba a annoncé sur sa page Facebook le placement en garde à vue de Ousmane Sonko pour vol téléphone Euh, ci kanam tuuti xëy na ñoom dinañu génn euh, ngir def ci ay réaction mais daal lii mooy li nga xam ne moom ci boppam la bind bu kaw Ousmane Sonko di maître Cheikh Khoureyssi Ba Pape Maguette Gueye sàkkoon ci lu ci beesaat rek ñu jokkowaat bu ko defee mu yaatu ci ñi ci ñi koy topp Imam Dramé dégg nga li Issa annoncé léegi léegi rek la métal coupé ma koy laaj ne ko ndax am nga yaakaar ci ñu bàyyi ko mu dellu këram tay tay tay mu wax ni jàppul ne sax war na faa julli dañ ko war a bàyyi mu dellu këram ci yoon wu normal waaye nag mu yokkoon ci ne lépp lu def du ko bett ndax ni ñu jaaree barricade ko këram ay ba fan ba xëy dindi loolu bàyyi ko mu dem Issa wax léegi ne Maître Khoureychi Ba moom moo bind ci page Facebook am foog naa dégg ko que ne mm, dañ koy placer en garde à vue ba noppi nag ngir waajal audition audition nag moom mooy li nga xam logiquement moo war a jiitu ci ñu déglu nit ki seet après ndax nañ koy garde à vue wala dañ koy nangam wala dañ koy nangam nga jàngat lan li Issa wax léegi bu dee information boobu dëgg-dëgg piraté wu ñu paasam dara te dëgg la ndax paas officiel waaw xam nga jàpp nit ki tee ko ci bërëb soog a def ay enquête li ñu miinoon ñun ci réew mi mooy nit ki da koy dangay am ci moom ay information yu war a tax nga mën koo téye ci bërëb loolu lañ miinoon loolu lañ mii noonu mm-hmm. mooy jàpp nit boo demee ba di ko teg ci bërëb di ko xañ privé mm-hmm. am di ko privé liberté am mm-hmm. war nga teg ci loxo nit ñi lu tax nga war koo def mais teg nit garde à vue ba noppi di lijjanti lu mu def loolu moom man miinuma ko xam nga xaar woon garde à vue boobu ah, man daal du sori xam nga man li ma gëm li ma waroon a wax yëpp pa màgget man wax naa ko d'accord dafa am loo xam ni euh, dinaa toogaat fii wax la ko li ma ci gëm mooy lii jàmmi réew mi mooy ñu dellu ginnaaw ci lii. ñu dellu ginnaaw ci lii. man loolu laa gëm te jàpp naa ne mooy jàmmi réew mi mooy jàmmi sénégalais yi di jàmmi Macky sàll di jàmmi régime bi parce que ñun ñëpp jàmm lañ bëgg. Mhm. waaye man li ma gëm mooy bu fekkee ni lii dafa am leneen lu làqatu ci ginnaaw ah, dafa am leneen lu làqatu ci ginnaaw pour teg Ousmane Sonko loxo la muy jur du neex kenn. Mhm. man nag loolu mooy sama responsabilité alerte. en tant que imam en diine. yaa ngi dégg. Hmm. li ma leneen li nag bataille juridique bi avocat Ousmane Sonko ko ko xam-xam ne am na ay avocat hmm. te loolu ñoom seen domaine la. Hmm. waaye man bi ma déggee càpp mbir mi la ma waroon def def naa ko dem naa kër Ousmane ko fexe naa ba am information. fexe naa ba ñëw toog wax ak Sénégalais yi. kii yilif réew mi it wax naa ko li ma xam ci réew mi. ak li ma xam ci jàpp jàpp Ousmane Sonko li mu mën a jur. ëllëg nag lu mën a xew. boobaa kenn ku ne da jël say responsabilité mm-hmm. il faut ñu comprendre ku ne ak fi ngay waxee. ak fi ngay waxee d' accord. waaw d' la en tant que imam moom. xam naa man am na détail yoo xam ni mënu ma ci dugg. ci dugg sama responsabilité mayu ma ko. d' accord du question sax dara mais. Mm-hmm. damay damay respecté ku ne li nga war a def. d'accord waaye li ma yàgg gëm man boo seetloo aspect juridique du ma ci mus a wax. Mhm. parce que loolu avocats ñoo ko maîtriser. waaye man mi yor sama xel di yor bët. di xool te it nag du ma jaayil. Mhm. lii ma gis mooy acharnement laa fi gis. Mhm. parce que nit mënoo koo def blocus këram pendant cinquante cinq jours. génnoo benn këyit buy wane ni donc euh, euh, war naa am. xëy bàyyi ko deful benn déclaration nga xëy nit di ko filmer nga jàpp ko tegaat naan nit ñi da da da waxoo dara lu nit mën a jàpp. Mm-hmm. parce que Pape Maguette. Mm-hmm. ginaar sax boo koy dugal ci ci ci ngund. war ngaa wax nit ñi lu tax nga koy dugal. nga koy nga koy dugal waxuma nag ab sénégalais waxuma la ak nag ab chef de l' opposition waxuma la ak koo xam ne ab candidat la pour jiite am réew. justement chef de l' opposition bi mu nekk ak ni mu toll ci réew mi ak ni mu mel euh, nga jàppoon sax boobu ba tey wala boog nga di kii que ne ñi koy def xëy na mën nañ ci bañ a yëgoog njiit mën nañ cee bañ a dara. waaye est-ce que fii mbir mi egsi ba ñuy wax ay place en garde à vue jàpp nga ne loolu mën nañ ko def ci ku mel ne Ousmane Sonko ak la nga xam ne moo mën a topp ci ginnaaw yëpp yëpp yëpp te njiit réew mi Sall fu mu mënti nekk duñ ci jokkoo ak moom ko ci rendre compte duñ ko ci yégal dara ndax jàpp nga loolu. loolu jàppatuma ko loolu bi ma koy wax sànq mooy jàpp mu woon ay mand ay ay. ay garde à mais comme garde à am na ci kenn ñemewut a def garde à mag Ousmane Sonko ci réew mi te Macky Sall du ko yëg. yëgu ko loolu loolu jarul jàng pour xam ko. Mhm. yaa ngi dégg ndax da koy yëg ni nañ bàyyi mu jàll wala da ko yëg ni teg leen ko ci suuf loolu suñ kanam la nekk. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. parce que nag affaire bi mbir mi ni mu amee pas pas Maguette sénégalais yi li ñu doon xalaat mooy jàmm. waaye mm-hmm. ati fan yii yëpp jàmm la nit ñi di waxtaanee. apaisement la ñuy waxtaanee. ay gor ak jullit jóg di dox pour jàmm am. kon bu ñu xëyee lii ni kërëb suñu kaw. li ñuy jàpp en tant que ay nit nag ñoo xam ne tooy bokkoon nañ ci ñuy dox pour jàmm. mooy rafet njort. rafet njort googu taxoon ma wax. waaye man nekkuma fi pour di jeter ay fleur kenn. Mhm. ku ma xam-xam loolu ci man. li ma gëm buñ ko tegee garde à vue Macky Sall yëg na ko. Mhm. loolu mooy dëgg parce que réew mi kenn ñemewu fee garde à vue Ousmane Sonko te Macky Sall du ko yëg. li ma gëm daal mooy. Mhm. garde à vue Ousmane Sonko ca mois de mars jurul woon jàmm. yaa ngi dégg te booba la gënoon a néew. Hmm. kon jamono jii nii gaw ma ni dina jur jàmm. nañ bàyyi lii nañ ko teg ci suuf. Hmm. parce que du jur jàmm te réew mi dafa soxla jàmm réew mi li fi dee ci ay bakkan ci ay caaxaan dafa bari. ba hmm. màgget. li fi yàqul nit ñi yàqule seen alal bari na. te li ko sabab yëpp mooy acharné wu ci benn nit. ñun foofu lañuy ñuy waxee. lii ñuy teg Ousmane Sonko buñ ko tegoon Macky Sall ñu ñaawlu ko. parce que bokk ko Ablaye Wade bëggee teg dañ koo ñaawlu woon. lii boo ko jàppee di ko xañ pour mu gis njabootam fas yéene koo xañ jant bi war ngaa teg lu leer ci kanamu sénégalais li tax nga war ko jàpp waaye man bu ma la waxee dëgg communiqué bii ma dëgg man convaincre ma ma am na wala amul mais man convaincre en tant que ci kuy xalaat waaw parce que Ousmane Sonko c'est pas n'importe qui ci réew mi ab dafa yor daf chef de parti la